fii ci réewum Sénégal kenn mënul toog lu toll une semaine wala un mois boo gisul ay ojo yu fuité bàyyi ko ci ñu siiw fii ci réewum Sénégal te ojo yooyu le moo ne boo ci déglu rek daa ngay daar say nopp ndax di nga xalaat ne euh, kii nii euh, waxul mbir mu mel noonu le moo dal kii di Mame Mbaye Niang Mame bi nga xam ne bii moo yóbbu Ousmane Sonko ci kanamu yoon ngir ay diffamation yoo xam ne bii nee na Ousmane Sonko daf ko teg ci kawam. maanaam Ousmane Sonko daf ko waxal loo xamante ne bii nekkul ba tax Mame Mbaye Niang daal di yóbbu woon eh, kii di Ousmane Sonko ci kanam yoon mais Mame Mbaye Niang moomu nag ay mbirum eh, dafa commencé eh, di sulleeku ginnaaw bi mu pelante kii di Ousmane Sonko. ndax Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang nag nee na bi njëkk moom mooy da doon ak ñi nga xam ne bii mooy waa Pastef ginnaaw bi euh, premier mars bi nga xam ne bii kii di aj Sarr euh, tuumaal na kii di Ousmane Sonko ba dëkk bi jaxasoo kii di Mame Mbaye Niang nag da doon daw pour euh, làqatu ji audio yi nga xam ne bii nag moom la doon waxtaane ak ñii di waa Pastef nag ngir def am négociation moom moom la kii di Tunkara daal di yor Tunkara moom nag nee na audio yooyu daf ko war a diffuser mais lim ciy xaar rek mooy am autorisation ci ka nga xam ne bii jële ko jëlee mu nekk ay audio yoo xam ne bi nag commencé na di seen fii ci réewum Sénégal jóge ci kii di Mame Mbaye ndax Mame Mbaye Niang nee na dafa bëgg pour waa APR xam ne moom dafa féete ga waa APR te fekk mbir mooma demewul noona moo tax muy def ay acharnement jëmale ko ci kii di